rapidement ci anniversaire yi euh, voilà pour terminer alors euh, Mao avec ta complicité yow ak euh, Ngalish bi nekk kon bi ak Abdourahmane ñu ñëw ci anniversaire yi on va souhaiter joyeux anniversaire à Adja Marie Diawara Adja Marie à toi et non non du bii de eh, Adja Marie Diawara mu ngi nii Adja Marie Diawara donc longue vie à toi santé prospérité et plein de succès c'est de la part de Kheuch ku ci happy birthday à Adja Adja Mati Diawara kon nee na xës nee na. waxal mu euh, leer euh, ay xës yooyu dafa na leer. xës la wax lañ ko tuddee mu tuddee wala Cheikh Cheikh Ndiaye la. mu ci lislaam wax notre puce à nous. notre puce à nous Adja Marie Diawara dundal dundal loo dund doyul on t'aime très fort ah c'est de la part de xës. ah euh, xati happy birthday par anticipation à Aïssatou Mboup euh, yaayu bébé Aminatou Aïssatou Mboup un happy birthday à toi on te souhaite un fabuleux anniversaire avec un excellent gâteau ak bëgg lekk une tonne de fanta euh, fantastique euh, cadeau de la part de ta fille à toi de la part de WAGFM de la part euh, donc de la direction des programmes bi nga xamante ni liggéey bu am solo nga ci def rawatina ci programmation yi kon Aïssatou Mboup on t'embrasse on te très fort enjoy your un happy birthday à Astou Assoumar la petite puce mi ne jeena ba sinu ba dafa ko tey nag naxuma la euh, tu as l'écran ma petite puce happy birthday à toi Assoumar moom nag Atlanta alfi la dëkk ca Amérique euh, waajuram bu jigéen tudd Marianne waajuram bu góor tudd Dame ñu koy rek daal un joyeux anniversaire de la part de sa marraine Diatou Samb madame Ndiaye elle fête aujourd'hui euh, Assoumar ses 9 ans Assou on te fait de gros bisous kiss comme on dit aux États-Unis alors Fatima, euh, Fatima Diagne. Non, avant Fatima Diagne, on va souhaiter un euh, happy birthday à mon ange, mon petit beau prince, euh, Tahar Rasoul. montrez-moi la photo de Tahar Rassoul il est tout simplement mignon oustaz xool ko ak euh, nu mu yoree nu mu yoree kon euh, kurus bi ci baat bi euh, moom Tahar Rassoul happy mhm. birthday à toi mon petit garçon xale dîner ah que Dieu soit avec toi mon petit bébé et mon que Dieu te protège durant toute ta vie sa yaay nee na bëgg na la torop moom Fatimata ne na bëgg na la kon Tahar Rassoul également à bébé Fatima Diagne princesse de luxe. Euh, je te souhaite une très longue vie avec tout le bonheur du monde. Je t'aime, je t'aime, ma Thomas chérie. Un joyeux anniversaire à ma puce. Elle est toute mignonne, euh, Fatima Diagne. Sa tante Diana Ba Seydou Ba moo la koy euh, daal di souhaiter. Un happy birthday à Adji Panda. elle habite à Paris Aji Penda ma nga ca Paris fi nga xamante ni foofu la euh, kon shopping yu baax yi nekk on te souhaite euh, tout le bonheur du monde et la réussite euh, euh donc dans tout ce que tu entreprends entreprends donc happy birthday à bébé Adja Aji Penda un happy birthday à Fallou Sakho moom tamit Espagne la nekk Fallou Sakho on te souhaite un happy birthday euh, sa famille sa xarit ak say dëkkandoo ñoo la ko daal di souhaiter un happy euh, birthday à mon meilleur mon mari sama xarit c'est de la part de Oumou Dem donc euh, ñoom ñoo lay souhaiter un happy birthday mais happy birthday spécial bi nag dañu koy denc pour la fin un happy birthday à à un happy birthday à son excellence Diouma Dieng montrez-moi la photo. de Diouma Dieng Diakhaté elle euh, c'est la grande royale elle euh, c'est c'est vraiment euh, la femme qui s'est toujours battue pour lu jëm nag ci wàllum cosaan ak aada rawatina nag wàllum wàllum mode daal di fes bu baax xool leen Diouma Dieng nu mu amee classe moom soxna Diouma Dieng Diakhaté on te souhaite un joyeux anniversaire maman c'est de la part de Alfie c'est de la part de toute toute toute l'équipe bi nekk fii ci RF GFM c'est de la part de waa Chalimar Couture waa TFM wax naa ko Alfi ñoom ñëpp ñoom Pape Cheikh Diallo ñu ngi lay souhaiter un joyeux anniversaire mannequin styliste ñoom ñëpp tënku nañ ci sama baat pour souhaiter un joyeux anniversaire te tante nag ma wax la ne maa ngi ñëw añ si nag ci kanam lay doon. ngir ñu fêter ensemble nag ñoo ngi ñëw ñoo ngi ñëw ñoo ngi ñëw yaay